génn moom euh, daa mel ni mbirum ngóor jigéen mhm. euh, borom ñaari tur yi lañ koy wax ci olof ndax gën a wodd baat bi mhm. moom itam tàmbaliwaat nañ ay waxam mhm. euh, mu ci fànn yu baree baree bari li ko sabab nag mooy kenn ci woykat yi nekk ci réew mi moom daal moo génn sol mbub mu am drapeau maanaam ay ay couleurs yu bari ñu ne couleurs yooyu mm, ñi nga xamante ne mbootaay lañ goo xamante ne ñoom daal ñooy borom ñaari tur yooyu loolu mooy seen drapeau léegi nag loolu indi am coow lu baree bari ci penc mi loolu yow man jàngal ci waaw waaw mën na ni coow de. Mhm. bu fekkee siiñ bi ñu ñoom diwa ko moom. Mhm. man tashabbaha bi xawmin moo koy fii. Mhm. dëgg la alayhi salaam nee na. ku bañ mel niw nit bu leen jéem a niru. man tashabbaha bi xaw fa huwa minhum. moo tax sol yu mel noonu. dañu jàpp ne yaa ngi leen di propagandal. dañu jàpp ne yaa leen di siiwalal. te itam alxuraan daa waxoon ne. juróom-ñeent ONG ngi nii yoo xam ne. Hmm. benn defaru ci. juróom mu ne benn defaru ci. wa fil madinati. Hmm, tis aturaatin dégg nga de. Hmm. tis aturaatin. yufsiduuna fil ard. wala yuslihun juróom-ñeent ONG ngi nii. ne ci réew mi. te kenn defaru ci. te ku defaru yaa nga yàq. te suñu Mbàkke. bàkkaar boo xam ne bu ko nit defee. ñépp ca am bakkaar boobu bakkaar lu ko jur lu ne ñépp a ko war a moytu nit ya ndax yàlla dafa yónni ab yónent ngir mu jële fi loolu nit ya ba ñuy def loola ba yàlla këpp suuf sa ñépp la këppaale dëgg la kon bakkaar la boo xam ne bii du bàkkaaru nit ki en tant que nit mhm. ndax aleyhi salaam daa wax ne bu góor mm. yéegee ci góor ni moom di mm. bànneexu arasa nga yëngatu malaaka yaa ngay buddeeku di buuru ñoom ñëpp naan bàyyi la ñu alag leen donc lu mel noonu mhm. boo jëlee signe bu jëm ca ñoom mhm. wala nga wax wax ju mel ni ñoom wala nga sol col gu mel ni ñoom yooyu yëpp loo ci def lu nekk rek. Mhm. penc ma dañ naan ah mu nga bokk. dëgg la mu tax daa jaar di moytu. dëgg la te sunum ci gone yi lu ñu séen roy ko. Mhm. waaw fecckat yi. Mm. ak ndagar wala kat yi lu ñu sol bu xale yoo xëy sol ko. dëgg la de ndax fi mu ne bari na ci réew mi ñu xamul woon drapeau boobu. waaw waaye sol gi mm, ci angle bi nga ko traité noonu nga xam ne boo bu dee sax duñ wax moom nga ak du moom. waaye ci wàllu propagande rek dafa nekk message bu yaatu boo xamante ne mën na ci am. waaw gone yi fi ne lu waay sol sol ko. Mhm. yooyu. xoolal tey tubay ju foq ci oom yi nim xewe waaw dëgg la de jël tubay foq koo foq ba te loolu rafetul vraiment wax dëgg yàlla jigéen ñaa ngi jël léegi mm-hmm. foq yi foq pooj bi mm-hmm. foq te wax dëgg yàlla mu loolu rafetul mm-hmm. waaye fi ne bu ko fecc ka defee rek xale bu ñu koy def ko waaw donc yooyu moom lañ ci tiit te bëgg ñu dellu ci ginnaaw penc mi ñu ñëpp ñoo ko bokk te itam ñi nga xam ne dañoo jóg di def loolu ci penc bi sunu borom nee na waaw yonent ba nee bu ngeen téyee seen bopp ci ñoom bu ñu alkoo alak leen bu ngeen leen ne bàyyi li ngeen def bu ñu muccee ngeen mucc hmm, hmm. dëgg la waaw dëgg la est-ce que moom ko waxoon ca hmm, euh, gaa yi xëccoo woon asafina fa asaaba baaduhum alaaha wa baaduhum asfalaha ila axiril